jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal Serigne Boubacar Faye le jeune mara très pertinent la leen indil tey suñ nee Faye xel dina am fu mu dem ndax ku ni Faye wax jat wax fas wax galañ wax mystique waaye tamit wax xar xarfa xuufa loolee waral tax nag ñu seet ci Serigne Serigne Boubacar Faye mi nga xamante ni jamono ji moom la téye ci loxoom ci wàllum mystique ci wàllum mara ci wàllum ñaan yàlla li tax ñu seet ko nag réew mi yëngu ku nekk a ngi naan jàppal kii bàyyil kii Ousmane Sonko ma diggante ak aji Sarr ndax Ousmane Sonko dina wuy jéem déet ndax dinañ ko génne ca këram ak déet loolu lépp tey dina leer ak Serigne Boubacar Faye ndax Serigne Boubacar Faye tey gis ngeen ni mu génnee xaal la génnee nañ waxtaan ak moom ci loolu. nañ waxtaan ak moom ci Casamance gax ga nga xamante ni fa la wala Ziguinchor ga nga xam ne Ousmane Sonko fa la nekk di yëngatu boobu ba léegi gis nañ policier bi nga xamante ne ñàkk na ci bakkanam ñu ñaanal ko yàlla rek mu xaaree ko avocat wu Sonko yi gis nañ seen discours yi ñu ba ci avocat ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr maître El Hadj sëriñ bi am na lu mu ko gisal ba ci moom ba ci moom Adji Sarr sëriñ bi tey yaakaar naa bu Adji Sarr seetaanee émission bi dina dina dina dellu ginnaaw ndax sëriñ bi am na lu mu ko gisal te am na lu mu ci war a wax dañu bañ a guddal waaye fi may tëjee rek mooy colonel bi nga xamante ni tey moom mooy Moussa Fall sëriñ bi tey gis na ko balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Boubacar Faye mu nuy mbokki internet yi nga xam ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawma din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ahdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ñu ngi lay fay di nuyu waa Sénégal ak waa bitim réew di rafetlu tooy teewaay bi nga xam ne moom ngeen ñëw fii teew si ma seet si ma macha allah sëriñ bi mbégte la ñuy am ak contentement waaye tamit xam ni dinañ fi jàng te dinañ fi jëlee njariñ loolee rek ka tax ñu déplacé wu ñëw seet si la fi ma bëgg njëkkee waxtaan bi mooy ci may gi nga xam ne suñu borom may na la ko da nga di pël sant fay itam nga am loo xamante ni da ko donn waaye am loo xamante ni da nga koo jéggaani dem jàngi ko jamono ji yaa ngi seet te li ngay seet ute naag di sa li morom yi seetee mais sénégalais yi mu jaral leen ko mm. ba ñuy njëkkante sa seet lu waral loolu. waaw xam nga boo gisee loolu rek seet bu wér. Mhm. moo am solo. ndax man su ma lay seetal. Mhm. duma la laaj tur duma la laaj dara. nan wax li nga xam ne moom laay seetee ma ni la temps laay seetee ndax ñaar laay seete kurus ak kaamil. allahu akbar bu fekkente kurus bi comme ça moo la gënal ñu seetal la ci kurus bi. bu fekkee kaamil bi ñu seetal la te duma la laaj tur. Mhm. duma la laaj dara. te da ngay def li nga war a def rek nga dugal ma seetal la wax la lu leer nañ. wax la mhm. loo xam ne yow di nga dem ba tegal sa bët. waaw waaw te nit ki da koy wax ba wax ko loo xam ne dundagu ko. nga ni ko di nga dund lii di nga dund lii. Mhm. mu dem ba gisal ko sa. waaw gisal ko boppam gis nga ay audio laa yor comme ça ñi nga xam ne dama leen di seetal ba ñu gis. Mhm. ñu ni ma lépp loo ma waxoon gis naa ko. gis naa loolu xam nga lu am solo bu am solo mooy ijaaba. Eh. ijaaba boo ko amee. képp koo seetal barki alquran karim xam nga am na ñoo xam dañuy wax koo xamul turam xamoo tur waajuram. lan nga koy seetalee. affaire bi du foofu de. mayu mhm. bi suñu boroom la. dëgg la. lii kenn mënul wax moo ma jox xam-xam bi. Mhm. suñu borom moo ñu ko kii ndax sa am na comme ça suñu maam ñu koy wax Omar Jamsire. Mhm. boo demee côté Nguer Malal côté Ñoomre Louga. côté Ñoomre. dinañ comme ça ñoom xam nañ kooku mooy kan. waaw ndaxte nekkoon na koo xam ne gis nga su ma fa demoon mu ni ma ni kooku mooy sama maam. yàlla xam na ni ñaari loxo lañ may nuyu wallaahi ndaxte ni mu meloon ci xam-xam mhm. kon lu am solo ba am solo tamit nit ki lépp looy def na nga ci seet suñu borom boo ci ragal oh. boo ragalee suñu boroom rek yàlla xam na ni képp koy ñaanal mhm. yàlla xam na ni day gëm ba gis résultat lépp loo ko defal da koy mhm. gis mais sëriñ bi dafa am loo xamante ne daf ñoo jaaxal ci yow muy jat yi ngay def jatu pël yi jël nga ci cosaan bi tamit lu baree baree bari waaw boo gisee loolu xam nga pël dafa day wax saalaale muhammad waalaale muhammad mhm. te teewul comme ça xam nga warul wax loolu waaw dafa yàq baat bi de mhm. salli muhammad wa ala ali muhammad la war a wax hmm? te teewul képp kuñ ci jàpp dañ lay jàpp képp kuñ ci kii dañ lay jàpp te dañ mhm. lay comme ça buñ la fasee ndax de am na bu fekkee diggante nit comme ça comme ça boo ko boo fasee am na yoo xam ne bu fekkee neewi neewi la dañuy dañuy wax saalaal muhammad waalaal muhammad muccum buub muccum buubu muccum sir burdu gi kilmi laxñal buub mhm. foofu ngay yem ba ilaa axiri mhm. boo ko defee comme ça bu fekkee neew neew yi dafaa nekkoon dina rees bu fekkee xam-xam rek mu ngi ci pël waaw waaw loolu moom yàlla may na leen ko mhm. mais àdduna bi moo doy waar léegi waaw te yàlla xam ne ni damay gis naan comme ça nit naan xale bu ndaw nga war a liggéey danoo xamul rek xam nga ku nekk ak mayam waaw koo dem ci mayam nga xeeb sa may dëgg la loolu du ci man suñu borom la allahu akbar ndaxte man ba ma comme ça 2005 laa dem daara 2000 2000 2009 ma wàccee mhm. nga comme ça ma nekk waaw mais 2018 laa ñëwaat te ñëw naa fi ba yàlla daf am kilifa mhm. yoo xam ne ñu ngi ci nguur gi yàlla xam na ni maa ngi jëflanteeg ak ñoom des fois sax dañuy bëgg dem fenn barki alquran karim bu ma dañ may woo waaw ñun ma sëñ bi léegi damaa bëggoon a dem ma ma xoolal ko ma ni ko déedéet jaarul ngay dem yàlla xam ne ni day day day day bàyyi comme ça yoon bi ndax lu tax ma nekk xale te ñooñu yàlla xam ne boo gisee. Mhm. nga xam ne ñoo sama papa ñooy maase. te mhm. boo boo xo boo gisee dama leen di comme ça dama leen di wax. ni nga leen di teg ci accès teg leen ci programme. te teewul de noonu lañ koy defee. am na lu ma bëggoon ñu waxtaan ci balaa boobu da ngay téye micro bi nii. Mm-hmm. ndax internet yi dañoo bëgg a gis sa kanam gi macha allah. Mm-hmm. léegi fi may jàll mooy. Mm-hmm. ci wàllu nopp. bëri na ñoo xamante ni dimbali nga leen ci ba ci koo xamante ni jigéen la. boroom këram mu woote. may ko baat ci téléphone. ba ñu war a wax ci kanamu mbooloo mi que ni may na ko baat ci kanam ay waajuram. simila ak saala nga liggéey ci loo xamante ne ba mu demee ci waajur yi dafa changer décision. sëñ bi loolu jaaxal waaw boo gisee loolu xam nga yàlla xam nañ ci guddi maa bi waaw ci guddi mi maa bi laa bind li may bind ci guddi maa bi la ma jox turum turam ak turu jëkkër ji mu ne ma suba la ñuy dem ñu nag ak njaboot ji ma ni ko jox ma tur man su ma xasee xoolal yàlla xam ne su ma bindul sax mhm. yàlla xam ne ni yàlla day nangu mbir mi la ilaha loolu mayeb suñu borom la. waaw nit ki kenn mënul dara. ndeysaan lu antu suñ borom la. Mhm. gis nga nit ñi loolu lañ war a xam. Mhm. gis nga ñi may seetal. ñu ci teg bët. Mhm. may defal nit ñu ñuy gis résultat. du tax man naagu. dama xam ne lépp suñu borom dama koy delloo ak suñu borom. ndeysaan ndax day yàlla xam ne dangay gis nit naan ma dem naa fu ne ñu lekk sama xaas mais loolu comme ça lu ko waral. am na ñoo xam ne dañuy gis nit tedd ci. ñu ni ah taxal ma tedd ci. te affaire bi du noonu. Mm, mm, mm, lu dul dëgg du yàgg. dëgg la. gis nga képp koo xam ni mu ngi ciy dugg. waaw te yàlla xam na ni nekkoo ci comme ça lu comme ça lu mm-hmm. comme ça nan dem. yàlla xam na ni di nga gis ñu bari ñoo xam ni doo leen gisaat. yàlla xam lii moom man maa la ko wax. mais nopp dafa mel ni da nga koo da koo donn mais yaa ngi ciy def loo xamante ni wax dëgg yàlla. Mm-hmm. nopp sénégalais mérite mérite nga yow sénégalais décoré la ci loolu. Mm-hmm. boole ñaari nit yombul de. lu ko waral moom yomb la ci man. Hmm? ndax xoolal nit woo la tey. waaw ñu ñu war a kii suba. waaw ñu war a ñu war a tas suba. Hmm. mu woo la nga def li ngay def ci guddimaa bi mu jàpp ci guddimaa bi. waaw yombul de. yombul de yombul de. yombul de déedéet. te lan moo ko war am nga affaire bi du mën de. Hmm. suñu borom la allahu akbar. yàlla xam oh. ne ne ma lépp lu may def. ndeysaan lépp dama koo bàyyi ak suñu borom ma xam ni lu antu moom la. yàlla xam ne ni comme ça am na koo xam ne moo may moo may tabaxal benn kër. ci loolu laa doon jëm si ndax bi muy jëflanteeg yow. Mm-hmm. yorul woon. Mm-hmm. mën naa ni maag moom nay maag moom ñoo yemoon dañ doon dañuy taqale. Mm-hmm. nga jëflanteeg moom mu dem ba jamono jii di la tabaxal kër te image yaa ngi fi. waa boo gisee loolu nga xam ni nekk ci déggu rek moo am solo. Hmm? gis nga boo déggoo amul looy ñàkk te nit ki nga wax dëgg nga def li ngay def lépp looy def nga nga ciy seet suñu borom. barke alquraanu karim te tamit nga ànd ak ijaaba. ndax ngi nit ki mun ngaa yor ay téere téere mhm. nga faja ngay defal ngay bind ay téere yu am nga des fois dangay gis sëriñ yoo xam ni dañuy lal yoo xam ni yu gudd la ay xaatim yu gudd te fekk duñ ci faj dara hmm? tam des fois nga am loo bind rek waaw defal ko nit mu am mu mais boo gisee kooku xam nga alal mhm. dafa am ci lu nga koy bunt yu ñu koy jaare mhm. des fois da nga koy jaare gis nga yaa fattaax yaa razaq tur yi suñu borom yu tedd yooyu. Mhm. des fois xam nga fattaax mooy ubbeeku di nga ubbeeku ci nit ñi. di nga am nit ñi waaw kon waykat yi xam nañ mooy comme bi may lay wax. Mhm. yaa fattaax yaa razaq di nga am nit ñi te di nga mhm. am alal. fattaax di nga am nit ñi. razaq di nga am alal kon ñaar yooyu dafa am li koy adat. waaw am luñ koy def. waaw defal la ñu dégg la te nit ñi dañ lay soog sopp. ndeysaan ndaxte boo amee nit ñi te amoo alal doo dem. maara nga am loolu de moo ma dal man mi waaw nga am alal. waaw comme ça nga am nit ñi te amoo. alal alal doo dem tamit. waaw kon faa ñaari yooyu nga boole ko. Mhm. te adduna bi danoo nekk foo xam ni. Mhm. danoo toll foo xam ni almaalu miftaaxu kullu baabi. Mhm. bunt bu mu fëgg mu ubbeeku. ah waaw. bunt bu mu fëgg mu ubbeeku. kon nag ku ko amul. ah dina dooy waar ci yow. da ngay xaar deuxième rang. bari na yoon yu ñu koy jaaree. tamit am na yoo xam ne ci gëléem lañ koy jaaree. giléem hmm? ndaxte giléem da ngay gis ñu naan comme ça xam nga giléem nu mu nu mu kiiwee moo sut ay ay ma mali di di comme ça bu buñ la defalee ni lay defal dinga nga sut say maas ci alal comme ni giléem sute ay bàyyilu oh. kon alal comme ça am na fu ñu koy jaaree dafa bari mm-hmm. ndaxte afala yanzuru ilal ibli kay xuliqat mm-hmm. xam nga ibli mooy mooy giléem mm-hmm. kon dafa am fu ñu koy jaar ba defal la liñ lay defal ñu dégg la ci alal pour di waay tuddee borom alal ñi boole la ci. macha allah gis nga secret dafa am de. lu am solo ngay wax. secret dafa am lu am solo ndeysaan. Mm-hmm. mais euh, fa la ñuy jàll dugg ci actualité. Mm-hmm. ndax mën naa ni euh, Thierno Boubacar Faye mi nga xamante moom lañ jàkkaarloo di sama invité tey bu ñuy waxtaan ak moom ci xam-xam duñ fi jógee ndax leen na ko macha allah waaye tamit leen na résultat macha allah moo tax actualité fi ma ciy njëkkee. moom mooy mais balaa maa dem ci actualité. dafa am loo fi génne ma gis ko ci say bagage muy semmiñ nga ni semmiñ kenn du ko gor moom mooy goraate. Mm-hmm. waaw boo gisee nga def ko ci leket def ci ay xeeru tiim. Mm-hmm. xam nga des fois am na garab boo xam ni dañ koy wax war ndunaaki. war ndunaaki. waaw pël moo koy wax war ndunaaki olof di ko wax rey doon. Hmm? garab boobu. waaw xeex rek la mën. xeex kase. dafa doy waar gis nga. kii kii bi ma nga gis mooy sémmiñ bi nga gis. waaw xam nga day gor mais kenn du ko góor. sémmiñ mm-hmm. foo gisee dangay ngay day góor mais kenn du ko gis nga sàngat boobu buñ la ko defalee. Mm-hmm. ba nga sangatu ko nit sa bu waxee ci yow laa la wax. Mm-hmm. tooke lay doon ci moom. tooke lay doon ci moom kon nga xam ni boo gisee sémmiñ bi rek am na lu muy dox loo fi gis am na lu muy dox. kon nit ki lu am solo bu am solo kaaraange da nga kaa war a am. force jamono bi ku amul kaaraange. da ngay xaar yaa ngi ci danger. yàlla xam na ko ndaxte li ma gis ci réew mi. Mhm. dafa doy waar te jamono dina ñëw di mm. dégg benn woykat boo mm. xam ni. Mm-hmm. dinañ ko dégg ci ci loo xam ne ci mbiru xaalis ci loo xam ni alal moo tax mu dugg ci. comme nan ba mu indi ay coow mu dugg ci loo xam ni. Mm-hmm. comme ça xaalis comme ça def loo xam ni da koy rëccu te nit ñi dañ koy wax loolu dina ñëw ci kanam. ci xaalis lay doon. waaw ci ci xaalis lay doon. te nit ki lépp looy def. alal. am na loo xam ne mooy duggaat ci phobie yi. alal mun nga kaa amee ci noo mm-hmm. xam ni. Mm-hmm. lew na. Mm-hmm. mun nga kaa amee ci mbiri alxuraan. mun nga mun nga kaa amee ci mbiru sarax. ndax sarax moom dafa yàgg. surtout ndaxte jamono jamono yi yàlla kii Moussa yonent yàlla Moussa. ba ñu rayee seen papa ba. ndax alal. dañ koo rey ndax kooku milliardaire la mais amul amul soxla amul doom. amul ku ko doon. Mhm. te ñooñu kooku mooy seen papa bu ndaw léegi ñu bugg kaa rey ndax pour doon alal ban ko rayee ba pare nag ñu dem ba exemple laa la jox ñu dem ba ngent mhm. jin ko waa ngent coow li bëri werante bi bëri léegi ban ko defee léegi ñu ni comme que kii kii na nan ñu woo Moussa ñu ni nan laaj suñu boroom léegi ban leen ban laajee suñu borom dama koy tënk rek waaw ñu ni kon nañ génne micro bi nañ génne nag waaw nag bi comme ça xale bu woo xam ni dafa yaru moo ko moom moo ko yor. Mhm. dem nañ fu ne dem seeraas dem fu ne. Mhm. gisuñu nag boobu. Mhm. léegi ban ko reyee ñee nee nan geen gi lañ jël. waaw ñee nee nan béjjën yi. waaw dóor ko ki nga xam ne moom la rey mu jug toog mu ni diw ak diw ñoo ma rey. ñu tëddaat bi kon kooku sarax bi moo ko feeñal. waaw boo moo indi suuratul baqara. baqara. gis nga baqara. waaw. boo am na loo xam ne danga koy bind. boole kooku soowu nag. dina la dégg ci alal. da ngay am alal ba pare am ay nag man mii boo gisee man sama benn nijaay moo ma yoreel samay nag mhm. yàlla xam na ni su ma la ko wanee kon nga xam ni secret man yor ma ci mbir ñaan bi dëgg la man dafa am ci leneen loo xam ne maa ngi ci mhm. barki alquranul karim kooku moo ma moo ma moo ma yoreel samay nag kon lu am solo ba am solo mooy que yore secret waaw gis nga secret nag ñun dañuy dem bay jaaxal suñuy mbokk naan ñii moom fan lan amee secret pour alal ndaxte ku ñu jël comme ça comme fekk la nga xam ne yoroo woon dara. defal la ba nga xam ne ñu lay tudd ci alal. waaw waaw. Mhm. gis nga kër googu ni lu ko waral gis naa nag gi ñu lay tabax xam naa nag waa du ñàkk bu ñu jëflante maa moom mu bàyyil ma fa nekk. amul benn problème incha allah. fi ñuy jàll mooy actualité. Mhm. Mhm. njëkkee ko ci Adji Sarr. Ousmane Sonko procès bi la 16 la. sëñ bi lan nga gis ci procès bi. waaw man li may procès deux ans ëmb deux ans. Ah, doy na waar xam nga. ñëpp sonn nañ ci mais li may li may faral di wax Ousmane Sonko dama ko doon wax dama am na kii bu ma waxoon yàlla xam ne li njëkk muy kii wa kii. may Adji Sarr may ñaa Mame Mbaye Niang Mame Mbaye boobu laa waxoon na wàññi wax bu wàññiwul wax mun naa dem ba yàqal ko lu bëri. ma rëdëytaal. ndax di dina dem ba wax loo xam ne lu ëpp la. Mhm. mu indil ko ay jafe-jafe. yàlla xam na ne lii laa doon wax. Mhm. mais lu lu lu lu am solo ba am solo. Mhm. moom na moytu xam fu muy teg tànkam. moom Ousmane Sonko. ñu neen ko jàppale ñaanal ko. na ko patriote yi jàppale. ndaxte dafa dafa wéet fu mu toll nii. te dafa soxla wàllu. ndaxte ña comme ça dafa am mbir yu koy def gis nga. ñi koy def ci wàllu mystique. wala ñi gis ñu koy kii yëpp. waaw dañ leen téye ci mystique. ñi koy. ñi dem ci comme ça ñi koy wor. ñi koy wor ci mystique. maanaam da nga bëgg a wax ni ñi koy wor ànduñoo ak seen sago dañ leen a moo tax dafa am lu def. gis nga Barthélémy Dias ñoom ñëpp ma ni comme ça li dañ leen a am fu ñu leen jaar. ci mystique. ci mystique. moo tax réew mi dafa nekk koo xam ne ku oyof bopp yàlla xam na ni doo fekk doo ko fekke mhm. am na temps yoo xam ne dama doon hmm? wax 2023 bi ñuy dugg dafa doy waar. ku mën nanga nga aar sa bopp am loo def ci sa yaram. mais nguur gi comme ça dama lay wax comme ça li nekk ci àdduna bi. waaw moo doy waar. mais luñ mën a xaar ci procès Ousmane ko aji saar bi la 16 bi. waaw coow li bari na Ousmane ko xëy na du wuy ji xale yi barricade nañ foofu noonu gendarme yi. ñu ngi ah, ñëw gis naa ci coow daal gis naa ci coow de. ci coow la yem kase. ah wax comme ça moo tax ko mani la xale bu bu ci kiiwul. amul kaaraange amul kaaraange. dinañ la dinañ la suuli. dina doy waa ci yow ndax ci li ci nekk moo moo li ci laxasu moo bari ndaxte danoo toll foo xam ni. xam xoolal comme ça nguur jar jarul. ñuy suul lu deewagul mais ñi mais ñi xam dëgg dañ naan dossier bi. Mhm. nekkatul dossier boo xam ne ci yoon lañ koy àttee mais dossier mystique la. Mhm. xam nga boo gisee loolu man dama la ne mhm. gis nga ci nguur yi. waaw am na ñoo xam dañuy suul lu deewagul. am na ñoo xam ne xoolal sacrifice yu doy yooyu. dañuy suul lu deewagul. boo gisee accident yi accident yi am. yooyu yëpp dafa am comme ça yu doy yu ñuy def ci réew mi moo ko waral. maara day taal di suul lu deewagul di sacrifice yu doywaar yoo xam ni. ku oyof bopp rek ci yow lay jëm. lépp ngir élection yi di ñëw. moo tax ah, xale bu ci oyof bopp. Mhm. dina doy waat ci yow. ndaxte yàlla xam na ni barke alxuraanu karim wax ma lépp. mais mhm. li may gis ci réew mhm. lu ñëwagul. ci sababu colonel Moussa Fall la mën naa koo wax ndax moom jamono ji moom mooy commandé armée bi moom moo leen di wax def leen bàyyi leen indi leen yóbbu leen. waaw man moom su ma sañoon ñu ñu wàññi kii bi. moom Moussa Fall. waaw comme ça ñu bàyyi comme ça ndaxte ni ñuy def loolu nekk na loo xam ne lu dey waar la. waaw dëgg la. ndaxte am na loo xam ne dañ ko war a art waaw bu fekkee mbir yi wa voté. waaw nan comme sax man bu ma nekkoon kii Ousmane Sonko du ma nekk fii naan ñii xeex leen def leen nii def leen nii ku ne na defar kii wam carte d'identité mhm. bu bu boobaa. Mhm. mu voté ku ko neex. Mhm. loolu buñ ko defoon rek dina fay wax jëpp mais am na ñoo xam ne ñoo bëggul wax ji foo kii yem fii moo tax. mais dafa am koo xamante ni moom moo jël dossier bi en ko. Mm. mel ni moom moom moom sénégalais muy maître El Hadj Diouf. gis nañ boobu ba léegi coow li moom moo ko gàddu moom lu Ousmane ko taqee rek moom da ciy dugg. xeex Ousmane Sonko. waa xam nga mooy li ma la wax rek Ousmane Sonko bàyyiwul boppam. ci mystique. bàyyiwul boppam de mais. mais ñu ne Ousmane Sonko dafa toj leen nag. lu mu mën ci kiiw boppam comme ça li mu mën ci yokku yokku kiiwu comme ça. kaaraange boppam. Mhm. na ko def. ndaxte ñu mm. ñi dañ koo jekku. ci mystique dañ koo jekku de. dañ ko jëkk ci mystique kon ko ce que biñ ko jàppee ci auto police bi dugal ko ci la la lañ la ah ma la wax foofu la de mais am nga nit ñi moom dañuy def waaw wax nga dëgg de fu mu toll dañuy def di def ay mbir yoo xam ni yow doo ko kii hmm. mais bu amul woon bu amul woon kaaraange mm-hmm. day fekk doy na waar ci moom mm-hmm. moo tax fu fu mu toll nii mm-hmm. yàlla xam na ni ndaw bu ci amul kaaraange lu nar a dal Ousmane Sonko wala mu nar a dal sa kaw lay dal allahu lii moom man maa la ko wax lu am solo ba am solo mooy ki kaaraange dafa am solo nit ki saa boo yeewoo sax hmm. danga war a am yoo xam da nga koy léemu waaw doog a doog a bu ko defee dina la dina la musal ci yi nga xam ni musiba ay balaa yi nga xam ne ñoo ñëw ci macha allah hmm. ah Thierno am nañ mbégte am nañ contentement jàkkaarloo ak sa jëmm ji macha allah nga génne xam-xam génne dañ lay bàyyi nga tàggu mbokki internet yi te xam ne ñi ngi dem waaye itam ñi ngi ñëw duñ fi yàgg dara hmm. waaye li may tàggoo mooy yal na yàlla def ci réew mi jàmm amiin waay nañ ñaan ci réew mi jàmm loolu rek moo am solo Mm-hmm. ndaxte li ma gis doy na waar mm-hmm. ndaxte hmm? li ma gis doy na waar de yàlla xam na ni xam nga man yàlla xam na ni du comme am na ñoo xam ne ñi nga xam ne jëflanteeg ñaam ñu mm-hmm. ñoom xam na man may kan xam nañ ki yéeti mais lépp dama koy teg am na koo xam ne barki alquran karim kilifa la nee na man dama koy yokku fit ndeysaan barki alquranu karim bëri na ci morom de ndaxte lu ko waral mooy que ñoom dama am lu lu ma lu ma jëflantee ñoom ba mu gisal ko seen mhm, mhm. kon nit ki lépp looy def rek nañ ci seet suñu borom moo tax boo man li may li may waxaat mooy que ñi nga xam ne dañuy dañuy jël xaaj nit ñi ba pare di leen bloqué wala buñ leen woowee di leen jël mhm. loolu dama bëgg mu jeex dëgg la yàlla xam ne su day deñ bàyyi naa ko sa loxo sa combat la ndax boo gisee loolu barki alquranu karim man suma ma sañoon sax du ma génn ci kii mais dafa am ñoo xam ne dañoo yàq mbir mi waaw ku ne dugg naan damay kii ta xamoo fan la cosaanoo mhm. xamoo fan la jóge mhm. kon nit ki lépp looy dugg rek nañ ko xool seetaat ko segg ko ba nga xam kii mooy kan mhm. nga soog kaa jox sa xaalis oh, ak contentement la am saa su ne buñ jàkkaarloog jëmmam ji di Thierno Boubacar Faye nekk borom xam-xam nekk nitu yàlla waaye tamit nekk ñankatu yàlla borom asraar boroom kurus muy ñaan yàlla nag di def ci réew mi loo xamante ni réew mi ngi koy bàyyi xel waaye mbokki internet yi ñi mu ciy jëflanteel ñëpp xam nañ ni xam-xam am na waaye ñëpp xam nañ ni it boroom xam-xam la boroom baateen la mu ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig jël ak seen beneen émission jël ngeen jëf